xumabal di ab xumbute ba ñu amal jagleel ko buuru usuy mu doon lu am solo ca kaasa kilifa ya fa nek dañuy daal di def ay sarax ay ñaan yu jëmele ci jamm naka noné dajalo ndax gën rataxal digënté bi ci askan wi lolé dem ci ndortel la way waxtu wo xamné pecc wey ñaan ba ci teggu saf sap dañ ko fay faral di amal li koy gën a firndeel bokk na ci bëre ci ay góor ak ay jigéen waaye ay mbër yay jóge ko ci ay gox yu fasantikoo yu nekk ca usuy ak li ko wër kenn ci ñoom ca ndaw ña du bëgg a ñàkk fekk loole xumabal mooy feet bi nga xam ne mooy feetu buur bi waaw dañuy wax buur mais ci Joola euh, man, la maanaam prêtre bu mag la hein, parce que religion animiste euh, de am prêtre hein. roi bi nag moi, mooy moo ŋànk lépp li nga xam ne la ñuy wax ay bëchin ay yenn fétiche yu ndaw yi wala yu magi, yi yo, na yoo xam ne daal moom ko yo yooyu yëpp moom lañ ko tek ci loxoom. fête boo xam la kenn mënu ko organiser bu que roi kooku ñuy roi wala man, wala grand prêtre bi amul euh, euh, roi bu laxoo kenn du organiser donc ak roi ñoo loolu nañ ko loolu surtout ci royaume bi royaume de Jum euh, Ëyi te ñu royaume de mais touram dëggantaan Jum bu mu jum nag ci histoire royauté fii dafa ŋànk ñi nga xam ne moom mooy royaume mu Oussouye ak beneen royaume bu nekk fii euh, ci ñaar fukki kilomètre fii tudd euh, royaume de Essaout Essaout euh, ni Sibili Mbay Jeeju nekkoon

dañ koy def pour nit yi vraiment ñi dajaloo pour jàmm bi gën dugg si ñii entre ñii ñi nekkul na rek xumbute ya ndaxte ña duggoon ca li ñu mën a jàppelal suñu dee génn dafay tax ña nekkee woon ca biir dëkk ba mbirub naka sudul noone yaa xam ci sab taxawaay faaw ñu daal koy firndeel tojati ci kanamu penc mi ña ca xarañ ca la liggéey tam ku ci nekk ñëw daal di fësal la ngay liggéey ak loo xam ne sunu borom def la ko cee jox. bés boobu mu ngi tudd Bahi Sène Bahi Sène mooy ku nekk bés bi su jotee su ñu génnee tam-tam yi bés boobu la ku nekk loo xamante ne yaa ngi koy yaa yaa ngi ciy liggéey boo loolu ngay àndi nga ñëw wone su fekkente ne yow moom da ngay da ngay tabax da àndi loo tabax nga wone ko. ñu ñiiti ñu xam ne kii diw day tabax boobu tamit bokk na ci promotion parce que foofu la ñuy bëri xam ne ki lii diw liggéey bi lay def comme ça ñiiti ñu ñëw fekk si la ci ci loolu ci loolu tamit période boobu nit boo xamante ne def na ñaawteef ci at bi jour boobu la ñuy lay wax ni ki lu nga def baaxul su fekkee da ngay siif jigéen jour boobu la ñuy lay bàyyi leen siif jigéen yi xam nga déjà du ñu wax tuur nit ki mais suñ ko waxee yow da ngay da nga siy gis sa bopp donc bés boobu bés bu rëy la boo xamante ne dañuy éduquer encore nit ki mu bàyyi ci lu mu nekkee mu bàyyi yàq mu da mu def lu baax. Yo, yo, yo, yo. atum ren reenu Bignona ñëwoon ànd ak ñu takku fekke loole naka noone buurub siin daldi yónnee ay ndawam lu takku ci ay lim ci ay jëwriñ ca nguurub senegal ñëwoon tam daldi koy teewe ku ci nekk am noo gisee bile bés di xumabal bi waaw fii nag euh, sama kër la ndaxte bu ma jëlee mbuba bi ba tey Euh, kii mooy sama papa mooy Sibili Mbay mhm. Géeju moo nekk tey sama papa ren alis Omoy moo nekk sama yaay ndaxte nit booy jóg xamuloo fooy teg sa tànk nga wuti fi ngay wéeru loolu moo waral tey man ma ñëw ba fii kon xew bi sama papa bu amee tey xew damay bàyyi lépp jaral na ma bàyyi lépp ma ñëw toog ba fet bi jeex mhm. ma soga tagato ak mom mu ñaanal ma ma soga ñibi lool moy sama tank fi Bignona maa ngi foofu pour art dëkk bi maa ngi pour faj maa ngi pour dimbal askan bi département bi yëpp xam nañ ma bu baaxa ba aduna bi tam ñu bari ñang dañ may fexi si ma ngi fofu pour ñepp dal waaw febar yi nak dañuy faj febar nit ki dañuy wax ñi xol febar bu mu am bu fekke mën nañ ko faj ñu ne ko ñewal buñ ko le faj ñu ne la demal fenen. mais faj bu ñuy faj foofu faj olof la ñuy def euh, faju nit ku ñuul si suñu reenu papa yi la ñuy nit ku amay gàllankoor dinañ la topator ba nga nekkat normal comme ni ngay daan dox mbubb bi daf ma dabi parce que man dem ba melu ma woon nii te man dama toog sax xalaatuma woon ni ki dinaa dem ba mel nii mais maye yàlla la yàlla bu nee yow di nga jóg suba nga def nii forcé di nga ko def kon munuma munuma weddi daal te dinaa topp jusqu'au bu ci tànk bu sell tànk bu set ma mun a jàppale askan bi te yàlla rek tax waa mooy sama borom kër ndaxte reen boo gis day am roi roi boo gis day am reen loolu motam mu don roi li bo gisé ma yoré ko bi bép dëkk bu ma dem buñ ma gisee ak bi ci lañuy xam ki bour la waaw ñun jolaay dañuy xamanté yow bo taxé buñ la xoolee dañuy xam ki diw la mel diw la mais man fuma taxaw bu ñu ma gisee ak lii dañuy xam ne ki kii mooy suñu buur ku nekk dina ma jox cër boobu banta bi moom laay ñaanee lu nekk lu ma bëgg a tey tey tey bu ma ko ñaanee ma joxoñ rek dina am incha allah moo nekk bant bii moo tax fépp fu ma dem moom laay yore ma yore sama jéem ma yore kii bi nga xamante ne dañ koy dóor mm-hmm. e talanga yi lii chaque jour bu may dugg si dëkk bii laay dóor waa dëkk bi xam ni ki buur baa ngi ñëw si dugg si si dëkk boobu bépp dëkk bu ma romb rek il ma dóor ko esprit yi nekk foofu ñëpp ñi xam ne ki am na buur bu nekk di romb dañ lay sàmm sàmm dëkk bi sàmm yoon bi ba fu nga yegg bii musulukaay la bii tey su ma neexee tey bu ñu nee dëkk bi tàng na ma taxaw fetel du du sab waaw su ma neexee man ma pare ba ma ñëw taxaw ma sol ko ma toog ku bëgg a ñëw pour def ay jafe-jafe bu dóoree fetel bi du sàpp loolu moo nekka ñu ne ma fépp fooy dem rek na nekk si sa yaram nga mun a protéger nit ñi. leket bi moom cosaan la parce que lii mooy sama musóor tey xam nga jigéen yi mun nañu musóor nii simple mais man tey boo gisee ñi yenn ma lii diis na métti na mais foo ma jël ko parce que lan la le destin sama liggéey la moo tax dinaa ko bàyyi si bopp bi même nu mu tàng tànga mung si sama bop waaw mbi pour mu aar ma euh, cosaan bi tam kep ku xam ki boo gisee bi si sama bop forcé di nga xam kii lu mu doon même bu ñëwee nga yurundu nii gis ma rek da nga war xam kii lu doon waaw euh, leket bi si sama bop bi yere bi yere bi yere bu ñuul bi boobu mooy sam sacré mm-hmm. boobu mooy sacré parce que man dootuma sol yere, n'importe yere. yi yére bii rek mooy sama sol ak yeneen sér yi nga gis si jigéen yi di woddu noonu yu nekk fii waxuma la boobu <laughs> yi rabal yi yu comme jigéen fii yu ñuy woddu noonu yooyu rek laa mën a sol waaye mënatuma sol yeneen yére bu baax pour ma mën a jaagari jaagari comme jigéen yi kii sama jabar la laa ren nekkoon nañ ci biir sëy bon lii mu dabb li mu dabee ak coono bu méttee métti métti parce que ndaw la mooy ndaw mu yàgg di mu toll ci jur mais bu mu demee ba lii feeñu ko lu mu tij lu mu ci daj yàlla rek a ko xam nanguwuloon parce que lan la da koy xañ mu mel ni comme jigéen ñi yëpp pour euh, pour protection askan bi ak àdduna bi yëpp mais bu mu demee ba xool ba xool nekk fu mu ne lii bu ko jëlu rek bakkanam mun na ci xëj wala mu dof ci ma toog diisoo diisoo ak moom waxtaan ak moom ba mu taggal ma lii lan la la ak lu mu doon ak lu mu jar ba muy dugg ci loolu moo xam ma bu ma ko comprendre mi borom jëkkëram ma doog koo libéré libéré pour rien mu jàppale askan bi képp ku am tolof tolof mu dimbale ko képp ku feebar bu ko yàlla nattoo ci moom te mu nar koo laal mu nar a baax mu yegg si ku nga xam ne moom nar koo laal du du ko jege sax ba tey yàlla def na képp ku mu laal ku ne fi ba bitim réew ñëpp ku ci ñëw rek ku mu ku mu tegtal tu ne sarax rek day ne ah wax macha allah gis naa lu ma tegtal moo tax tey ñëw nañ Oussouye suñu paa bi moo ñu tax a jóg mooy euh, Sibili Mbaye Diédhiou le du d'Oussouye moo am cérémonie bu muy def chaque année moo tax ñëw teewal ko pour dëgëral euh, dëgëral dëgëral taxawaayam si dëkk bi cour royale Oussouye ak cour royale bu Bignona bi ñoo ñëw mbooloo pour fekkee cérémonie bi ñaan yi fi nekk yëpp ñu ñaan ko bokk ñaan ko àdduna yi àdduna bi képp ku fi teg tànk mbooloom yëpp fi nekk ñaan bi fekk leen waaw te moom kii mooy ren département Bignona bu Bignona bi ma ba doona roi si moom moom dina doon ren mais moom comme que ren la man dinaa doon roi parce que ma affaire bu mu nee ni moom la feeñu du man mais moom la feeñu moom mooy ndey billi bi fu mu feeñee ci moom rek xam nga rek quand tu vois euh, une reine a un roi moo tax nag man ma doon roi mooy kay moom mooy gouvernante suñu gouvernante bi lépp lu war a ñëw comme appel wala comme kuy jël pour seet wala ku am soxla ci moom nga njëkk a jaar balaa nga ñuy jot xemeen Esaw bokk na ci royaume bi ñëpp ci royaume bi kii mooy màgg comme lañ koy gisee ñaar yëpp suñu buur lañu kii su fi jógee ci kii rek la mën a dem day dem seeti kii mu ñëw ci royaume bi la mën a tax teew nañ fi aussi teew nañ si suñu dëkk maam suñu dëkk cosaan nuñ ko mën a waxee parce que séeréer su fi teew war na wax ne ñëw na si dëkk maamam angeen e jàmboñ ñu teew fi si kilifteefu buur siin Massinig ñoo ko bàyyi Fat Dieng Diouf mu yebal ñu fi yebal ñu fi pour ñu ñëw seet si nawlem xaritam mbokkam buuru Oussouye bi si bés bu mag bi mu am xewle ko invité ko ci buur bi nga xam ne ba ñu xewlee war a fal ñoo ko bàyyi Massinig ñoo ko bàyyi Diouf moom dafa dañ dañoo indi délégation invité ko mu yëkkati kuréel bu mag ak cadeau ak sarica bu mag indi ñu ko fële teewee mbir mi ba mu jeex taxawee ñu mbir mi ba mu jeex wan ñu ñoom nan lañ koy defee ñun aussi ñu xam nan lañ koy defee ñu boole yëpp parce que daanaka benn njaboot la comme ni ñu ko waxee rek ñaari jigéen ñu siw ñu baax ñu sell ñoo leen meññ kon lu lépp lu xew fii rek ñële dañ ko war a fekkee keru kii mooy doon keru kële naaju kële moo war doon naaju kële looloo tax ñu teew fii ñu ñëw nag ànd ak ñi nga xam ne mooy jaraaf ku xam nguuru siin xam ne jaraaf moo amoon avant ñuy wax nguur sax les laman ñoo fi nekkoon laman yooyu mooy la euh, famille Fadial Ngom yooyu ñoo fi nekkoon di doxal bi nguur commencé ñooñu ñoo taxawal nguur ñooy fal buur jaraaf mooy fal buur buur mën buur su ko jaraaf falee ba pare jaraaf mën na folli buur mais ku xam doole bi xam niñ ko tëralee mooy ne

lii daal ñun jàmm fu mu amul rek dara mënu fa taxaw jàmm fu mu amul dara mënu fa dund dara mënu fa meññ te ñun dañoo nekk ñaari askan yoo xam ne askanu jàmm lañu joola ak séeréer angeen ak jàmboon yàlla daf leen boole ñu doon askanu jàmm askanu koo liggéey lañu xam xamuñu leneen lu di liggéey topp lu ñu gëm teral suñu dëkkandoo teral gan mooy ñaari xeet yu nga xam ne soo jógee feneen xamuñ la soo ñëwee dañ lay teg si kaw toog si suuf dañuy jël li ñu moom lu baax jox la takk seen biir jël seen ñam jox leen jox la takk nekk ak seen xiif kon caravane loolu moo tax ñu ne kon fekk demee na nii te ñoom ñaari communité yi ñaari askan yi ñoo ngi denc seen nguur taxawal ko nañu sukkandiku si nguur yooyu levier yooyu def ko levier def ko levier vecteur de paix ñoo xam ne des acteurs lañu dañuy di yëngatu pour mën a taxawal nguur jël pour mën a taxawal jàmm seet loo xam ne dinañ ko def ba askan wi Sénégal dinañ am jàmm ñu dox ko caravane boobu lañu bëgg nag waa Sine topp Massinig Niokhobaye Fass Dieng Diouf ñu def caravane mag ay séeréer yu bëri ñëw fii ñu jaxasoo saafonte waxtaan ci jàmm gën a dëgëral li nga xam ne suñu maam yi dañ ko téye woon ba mu dëgër. bu ñuy ñëw indi indi nañ sarica di ko xeeb lool nag Maada Sy Niokh Baye Diouf da koy xeeb lool mais au moins firndeel na ñun lu ñuy dundee

mooy sunu mooy sunu mooy sunu am-am indi ñebe indi nañ ko pon suñu moo ñu indi ko lu bëri lu bëri lu bëri mais dañoo tànn loolu rek indi ko xam ne suñ ñëwee si suñu mbokk lañ suñ ñëwoon loxo neen it dañ ñuy teeroo ni ñuy rek kuy ñëw sa nañ la soo indee loxo neen nañ la nañ lay teeroo lañ lay teeroo soo indee ñu leneen it ñu teeroo la ñu teeroo nañ la war a teeroo rek changé wu ci dara mais ñun nag cawarteel si ñun ñu indi lool indi ko euh, bu euh, Simbulu mbaay Diédhiou di sunu kilifa di nawle di xarit wëllëre bo si Masinick ñoxo bay fat Dieng Diouf président de la république xamna effectivement que mom mu ngi liggé jour et nuit ci paix mu ngi liggé ci paix fi ci Casamance alhamdoulillah paix amna légui mais président de la république daf koy ñaan ne que bu profiter occasion cérémonie bi pour que julli bu def ñaan yo def pour que effectivement paix am nous consolider ko te généraliser ces julli seen Sénégal parce que nous xam effectivement paix amul développement du fa am. di est président de la république mu koy remercier ci lu muy ci ci pour pour Sénégal président de la république donc euh, daf ma pour que je andil ko contribution à la festivité. parce que nous savons que l'événement effectivement événement yu de nii dafa 10. dafa président de la république jox une contribution pour que andil sa majesté Quand je bu ma ko que ba pare di président de la république dafa doubler l'union nous ñu ñeneen chef de yi doon jox président Macky def ko doublé tey kontaan te nekk effectivement maa nekk porteur boobu loolu dama ci am kontaan bu war di ko wax ne président de la république ak ñëpp Sénégal li ñëpp ñu ngi ñaan yàlla pour ko mu guddal fanam parce que moom dundam am na njëriñ ci Sénégal am na njëriñ si Casamance. fukki fan ak juróom dañ ko amal ci ay yëngu-yëngu fukk yaak ñaar ya ñu njëkk a def ci ay ñaan lay doon ak lu dem ci aada ba ak cosaan ba ñu daal di koy fësal ca bois sacré bi ay fan yi des làmb ji daal door pecc meek yenn ci ay xumbute mu nekk nag fête boo xam ne day am fukki fan ak juróom ci fukki fan ak juróom yi nag dañ ko pàcc ñaari yoon ñaari parti benn bi mooy lépp li nga xam ne prière la lépp li nga xam ne dem ñaan ci fétiche la lépp li ñu mu nga xam ne mooy dem gërëm Artémis Sembé ah euh, loolu seen affaire bopp la ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy animiste yi euh, ñoom dañ koy def euh, si presque treize jours yi nga xam ne avant ñuy dugg nag euh, ci li nga xam ne mooy deuxième partie bi mooy il faut que nit ñi génn di fecc di génne tam-tam sacré bi loolu bokk na ci programme bi euh, di euh, di di di lutter góor ak jigéen. lamb ji day tax nit ñi dajaloo lépp lamb fu mu am ñi day dajale nit donc lamb fu muy am ba bànneex moo fay am bég te nit yi dinañu kontaan donc looloo tax lamb bi ñu koy def parce que loolu tamit bokk na si suñu cosaan. depuis des siècles wa jigen yi ñun fi parité bi dañ ko def depuis des siècles góor su bëree jigen war na bëre loolu tax dañuy dugg ci mbirum parité ba xamantene jola yagana am considération ci jigen jola dafa am considération si jigéenam anam ya solo ku leen seen gët di fay dess waaye yet ya ñu yor ba yenn ci ay gànnaay donc ginaar ak leneen ba ca puudar ba du ca des gannaaw ca xew-xew yooye bëre dafa nekk tradition fii comme nu mu nekkee tradition ci séeréer yi bon ñii nag moom conservé nañu pratiquement tradition boobu parce que tradition boobu dafa am relation ak initiation yi maanaam nu ñuy tàggatee nit ci wàllu xam-xam boo xam ne seen xam-xamu bopp la euh, ma joxe exemple boo gisee xale yi di bëre diñ ci gis ñoo xam ñu ngi yor benn geen bu xonk boo gisee si bëre bi ñooñu da ngay xam ne ñii pour le moment ay amateur lañu nous commencé donc di di bëre mën am peut six mois mën nañu am deux ans am na ci ñoo xam dinañu am genre génn boo xam ne hein. tal euh, euh, parce que du gratte hein, mais quand même il faut que nous ñi sol ko boo gisoon tey ku koo génération parce que lépp organisé wu ci génération génération bi dinañ ko song dañ ko dóor yu métti parce que dañu ne dafay yàq tradition bi lolu loolu tax donc ñom ñu euh, ñu ñu sol lu weex loolu geen bu ay temps gis geen bo xamné wex na mais tilim na mais ñom ñoo tilimal pour wane ne ah ñu ngi bëgg avancer pour dem nek manam ceinture noire ceinture noire na comme nuñ ko xamé ci arts martiaux ceinture bi nga xamné mo daggal lepp li nga xamné compétence la ah té bo demee bo nek ceinture noire bu boba tamit nit ñi euh, japp nañ né bo togaati encore 2 ans bëre maximum da ngay arrêter bëre parce que tam bëre dafa am âge wa té âge bi tamit génération la manam ñi nga xamé ne ñoo bokk presque euh, ay ay ay kii yu mbar lañu dal ñoko hmm, ñoo bokk loolu lañu wax génération yi donc euh, mais amna solo top parce que bu fekkante ne nit ki. Euh, dem na boo nek ceinture noire bu euh dañ koy may xamna naa ñaari at yi di suivre mu dem def ben initiation bu ñuy wax ECAIS ECAIS nak mo jéxal initiation yi ah, parce que fi mom amna ñent initiation te ECAIS moko jéxal jeexal nak par génération dañ koy def Ekaïs nak moy tay tin bu bëggon dem gis roi bi ki nga xamé def na ECAIS mën nako jël dem yóbbu ko pour mu gis roi bi moom bu bëggee mën na dem gis directement roi bi am na foo xam ne dina fa dugg parce que euh, li mu nekk moo ko ko may mais bu deful ECAIS man par exemple fii royaume bi su ma bëggee gis roi bi je suis obligé ma dem xool koo xam ne def na ECAIS mu yóbbu ma ci roi bi donc ECAIS mooy vraiment li nga xam ne moo lëmbee lépp luy initiation. boo gisee ñu dóor bant bi suuf c'est pour dire a jaaraama continuer leen euh, may leen kattan may leen courage donc loolu yëpp dafa di ay éléments de folklore yoo xam ne am na solo trop ci béré euh, euh, bi xew fii muy fii muy ci yeneen village yi damay fàttali ni béré du xumabal rek béré aussi tey usuy mën na xëy jug mu ne dem attaqué ji waa EFOC

Ah, ñoom dinañu xam lan la ñu bëgg a wax ah, bu bu ko defee loolu aussi façon wéy bu ñu xam la biir Casamance am nañu am na façon wéy yoo xam ne en général day wéy jigéen ñi ñoo koy ñoo koy euh, ñoo koy euh, ñoo koy euh, fent ñu ci yu ci bëri du du du tout le temps ñoom mais yu ci bëri ñoom ñoo koy fent et du coup wéy yi ngay dégg noonu ah, pour aussi wéyu nañu continuer. maanaam xeex bi nañu continuer bëre bi euh, et que yàlla may leen yàlla may ab peccum jàmbaar yu góor yi ak sax yenn ci ay soxna ya cay ànd ak ñoom laata ñu dem bëre ji wala buñ ca noppee waxtu woowee jàmm mbégte waaye bëre bañ cay def di ko def te xiiroo du ca am ŋaayoo du ca am lépp ci jàmm. puudar ba ñuy daal di jëriñoo ku ci daan dina am ay soxna wala yeneen i góor daal di ñëw su la ko ba mu saf sàpp sa kaw bopp wala ca digg ginnaaw ga ñoom mbër ya loolee di leen di gën di ñaax ndax ñu mën a daan seen ay nawle. fecc boobu ñu ngi koy tuddee ekonkoon donc boobu day tax xale yu góor yi bala ñuy dem bëre dañuy fecc loolu mooy tax xale bi mu am courage am fit pour daje ak moroom loolu day joxe nit ki fit suñ fa jógee suñu feccee ba pare suñu bëree ba pare dañuy ñëwaat fecc pour wane ni ki tey moom ñun benn lañu ay xarit lañu ku nekk nga gis ku la neex nga ne ko yow laa xarit ñi dem kër ga ñu toog lekk donc loolu day gën a dugalante jàmm bi siñ bi. dañuy wax ne loolu folklore la rek xumbal la rek waaw parce que euh, bu ñu ko deful tamit du yàq bëre bi mais day neexal bëre bi donc loolu accessoire la ah. Euh, loolu nag en général jigéen ñi ñoo koy def boo leen xoolee bu baax parce que gis góor bu dem jël calque parce que loolu calque la dem di ko sotti jigéen ñi loolu aussi ngay gis euh, intérêt bi nga xam ne société Joola may na ko jigéen ñi parce que euh, xale yu góor yi bu ñuy bëre toujours dañuy ñëw ak seen village parce que aussi bëre affaire de village la te village yi mën na nekk plusieurs villages yu ñëw di bëre comme tey mën nañu am Euh, exemple la Bukiti nga ñëw bëree euh, mën may ñambalan mu euh, donc bu fekkente ne mbër bi dan na quelqu'un mbokkam yi ñom ñoy dem mbok yi nak mën na nekk mbokk proche mën na lointain ko pour wax ko aussi ko xamé et souvent d'ailleurs euh, ñu ci bëri booy xool bu baax xale yi di bëree euh, boo gisee comportement yenn jigéen yi da ngay xam ne ñii xam naa ñu ngi ci ngoro euh, après nag xëy na xëy na ñu mu mu doon mu doon sa soxna. dama ñëw fii pour ma bëri ah, man ak gars yi quoi. quatre combats quatre victoires. Raymond Diatta dama ko gisee rek. voilà ma détecté ko ma ne waa Esau damaa soxla seen xale bi soxla naa seen xale bi Raymond Diatta parce que aujourd'hui grâce au Casa.

depuis lu ma lu ma ko lu ma depuis ma ko kee ba léegi bu bu mu nekk di bëri fii ba léegi du mës a jàppala ak beneen moromam ba ñu atte ko fekkee daanewul foog foog mu daaneel kooku léegi mun na def fi presque quatre matchs def na quatre matchs quatre victoires loolu moo tax ma ne ko léegi na mu na mu xaar tuuti mu reposer yaram bi parce que peut-être suba dina ñëwaat encore ndënd yi ñuy jëfandikoo ci ay koŋ ak ci ay xumbute yu bari foofe waa ji day moo leen daldi liggéey mu doon liggéey bu am solo ay weeri weer yenn cay ndënd dina ko ca taxaw di ko liggéey njëg la doore ci juróomi junni jàpp rekk lu ëpp sax téeméeri junni suñu sukkandiko ci ay kàddoom eh tijom sanjere tijom mate bajo tasabi ya fula esa utudi eno rinja hamba chay jambon sanjere tijom sanjere tijom mate bajo tasabi ya fula esa utudi eno rinja hamba chay jambon li moy accounting, guitare traditionnelle jola du osoy moy département du soy ñun ñuy ne casa jola kasa moy département jola du osoy du département du soy ak le leket Euh, njëkk ba suñu papi lolu euh, lañ jëlé pour ki récolte di 20. blanc wa pour sanga mais bi bant la du lekkat mako yett parce que man escritel tamit damay tega musique en même temps yett wa damay sculpter damay def rubari parce que damay rabay pagne damay def peinte voilà damay tega musique tamit waaye ñetti ca ndënd yi am nañ ci solo lool te askan way yeewoo ca usuy rawatina ca kaasa soxal na ko lool. Euh, bant santang parce que boobu dafa woyof loolu moo tax ma préféré jël kii bant kii santang. loolu mooy bombolong. bombolong oui ñun euh, mooy euh, mooy usuy joola bu ñu nee joola huluf dañuy ne loolu imbele imbele yeneen dañuy ne bombolong. beneen bi. boo gën a rëy bii mooy Kabisa loolu la la ñu tëddee Kabisa FM bu déggee Kabisa FM mooy bu mag bu mag bi. Euh, mën naa def que un mois parce que rijay bi dafa compliqué euh, li bi li tronc kay mooy arbre euh, kaysedra muna am ki un siècle muna am 100 ans parce que day yaga yaga parce que euh, kay sé dara galu bois rouge galu der waaw En 2005, j'ai commencé à travailler avec Bombolon. Mais tant que je suis allé, tant que j'ai commencé à faire. Euh, depuis que j'ai commencé à faire CP, laa commencé yet ay affaire yu ndaw yi ay kii affaire lu lu ñu jëlee pour kii togu naka lañu ko waaye ci olof. waa cumaar comme genre cumaar yi traditionnel ak e, pagay lu ñu jëlee pour dem kii géej waa pagay après ma commencé ci kajandu yi lu ñuy ne kajandu lu ñu jëlee pour béy kajandu après ma commencé ci tëbre traditionnel yi mooy togg kii fu ñu toogee voilà mooy euh, tabre dañ koy ne effet njëng atum ren venu ñëw di ab entreprise fas yéene gunge xumabal bi ci at yi di ñëw tax ñu daal di léngoo xaatim déggoo ñoom waa venu la ñu ma bët mooy gën a jox doole lii di xumabal anam yañ koy amee waaye tasaare ko ci àdduna ba ku ci nekk suy jub si nga mën a ñëw

tey bu ko ñitti xamee dinañ la def dinañ def yëpp pour ñëw fii loolu moo ñu ñu ñu décider seeti roi bi ne ko sa majesté ñun daal lu ñu bëgg moy def en sorte que immeuble bi ñëpp xam ko immeuble bi ñëpp mën fi ñëw immeuble bi bu fi ñitti ñooy ñu contane lool moy suñu liggéey tey mais li yëpp buñ ko défé dañu bëgg respecter tradition bi roi bi tradition bi nu mel dañ ko bëgg respecter lool motax tax dañuy liggéey pour promouvoir immeuble bi mais immeuble bi il faut ñu xam ñi découvrir que ak tradition bu mu am. Vono suñu partenaire la ko xamantene ku yàgg la ku nekk ci bopp bi yàgg nañu liggéey def ay juróom at looloo tax parce que xam ni dafa pour jàppale ñu pour vraiment culture bi gars yi gën ko xam ci donc looloo tax ñu signé convention mais aussi pour que mu en koom-koom ci parce que ñitti suñ ko xamé gaay ñu bari dinañu ñëw pour xam dëkk bi xam cosaan bi donc loolu tam looloo tax pour xam pour que culture bi ñu gën ko xam pour comme koom gën dugg ci bi région Casamance bi. si ndaw yi tay li ñu bëgg mooy ñu mëna waxtan ak nit yi mën comprendre lan mo am nga xam ni nit yi kontaan nañ ak lan mo am nga xam ni nit yi duñ kontaan comme ça bu ñu demee ba ci biir waxtaan bi.

nit ba nous dañu foogoon Casamance guerre la nit yi dañu que Casamance dafa sore de xamuñu ne Casamance dafa dafa rafet am na lu que guerre amatul il faut ñu nous ko que nous sommes ñu ñu xam ne euh, lu suñu plage yi ñëpp xam ñooñu ko suñu végétation bi ñëpp xam nañ ko mais si ci même bu dee xam de ko bu ñuy dañuy dañuy

ay sénégalais yi ñëw di visiter Casamance ay sénégalais yi ñuy dem di visiter Richard Tell. ay sénégalais yi dem di visiter Kédougou voilà sénégalais yi itam ñoom war nañ xam seen dëkk war nañ bëgg visiter seen dëkk. Croix-Rouge du ca des gannaaw naka noone sax yenn ci ay fajkat. tey Humabel bi bon c' le Sa Majesté euh, le roi Sibélou Mbaye qui nous invite à venir assister la population oui. Nous avons parlé euh, euh, suñu population population locale aussi parce que nous sommes presque presque village environnant yëpp ñooy dajee fii ci événement bu rëy bi donc dañuy ñëw euh, cas yu c'est des débordements légers mais n'est bon c'est pas très grave c'est mm, depuis nous avons commencé l'intervention, nous avons eu mus sur l'hôpital sinon c'est des cas légers on les traite sur place et. Croix-Rouge ak médecins yi ñoom fépp xew boo xamante ne il faut ñu teew parce que tey ñoom suñu teewulee moom xew bi moom du mën a jaar yoon donc médecins yi dañuy ñëw médecin région Ziguinchor bi pour ñu def ay consultation gratuite loo xamante ne musul am bi première édition Là. donc euh, ñu ngi ñu ngi sotteew yàlla continuer vraiment nous ngi remercier Ansoumana Diatta professeur bi.

présentement on est ñu ngi ci euh, fukk ak ñett cas yoo xam ne euh, ñu traité dañuy traité ñu bàyyi len ñu dem. ñu koy ñoo ñi invité mais même invité wu ñu tam dañuy ñëw parce que la Croix-Rouge est là pour tout le monde ñu ngi fi pour askan bi. lu tollook fukki buur ak juróom jot nañu jaar foofe ca usuy tey jile ka sunu borom teg di simbi lu mbay jeeju moom taxawaayam daal di jekk lool ca dëkk ba ci aar ko yiir ko ci kàttanal sunu borom ak ñam ci àndal ma ngay xeex saa su ndax jàmm sax foofee ca Kaasa ak ci Sénégal wërngal këpp